jàpp ci carrière am lañu euh, ba mu egg si fii macha allah mu am reconnaissant lool wax lool lu baax mais grand nuyu naa la. man maa ngi lay fay bu baax. lii nga def tey ci vendredi. ah waaw ñu simple rek ah baakan ah, waaw. ñëwoon tey li fi xew teewe ngeen ko seen bisu rak seen bisu xarit. ngeen yàgg seen bisu koo xam ne benn ngeen. nga nekk génération consciente nekk fa kilifa. lan lan ngay wax mbokk yi lay seetaan internet. waa mais xam nga euh, ñun moom Pape fu mu nee rek ñu nga fa waaw loolu la yàlla tudd nag ba euh, ba ñu doon ay màgget. déggu leen. ba ba ba màgget ba xubi sax. bon xam nga Pape euh, bokkatunu musique waaw sunu frère la ñun on est frère est vraiment de vrais frères. waaw te ci lu mu yëngatu rek ñu nga ca. ñun it lu nu yëngatu it ma nga ca ba nga xam ne Pape mérité na lu nekk ci musique bi franchement waaw ndax yaakaar naa ne Bakane depuis vingt ans plus de vingt ans wax dëgg yàlla ñu ngi ànd ba jabar yi xamante doom yi xamante xam nga man sama doom euh, am na am na lu may wax bu bu ko yaayam ne yow kan mooy sa yaay rek mu ne man bébé baas mooy sama yaay ci waa donc xam nga dafa dem ba vraiment mu doon lu neex daal suñu diggante ba gis nga tey ji nii tu sais Pape ah euh, mérité na lu ne waaw sponsor yeeg euh, lépp loo xam ne lu lu doon ndam daal wax dëgg yàlla ñun dañuy ànd ak moom te moom nit ku simple la loo xam ne moom yëgalu ko sax yaramam. waaw macha allah. mais grand na ah, li grand frère wax loo ciy dolli rek ngeen nekk ku ko jege mën a wax ci moom nag ngeen xam ko. waaw Papis wax na lépp dañuy waxaat rek lu ñu wax répété la rek yàlla na ko jik waaw lépp lu mu am am na mérite bi ndax nit ku baax la. yaru na baax na vraiment dañuy répété rek donc xam naa ne que suñu nee nii après dañ ñuy laajaat leneen. donc je pense que li am solo ba solo mooy nit soo baaxee lu baax rek ngay am yàlla na ko jik yàlla na ko yàlla lafal cat aussi yàlla na nekk li gën ci moom. diggante ak moom ndax dañuy gis lu mu xat-xat dina tudd baakan. xam nga loolu moom jaratul wax. waaw yooyu moom am na yenn yoo xam ne. mooy Papis wax na ko léegi lu ëpp vingt ans. jaratul wax daal. xam nga diggante bi moom yàlla def na li muy def ci diggante yi ñun suñ biir ba pare. et te aussi yàlla na yàlla defal képp kuy yëngu rek ci musique bi rek. yàlla defal la jàmm loolu moom solo parce que loolu la dafa am mag ñu fi nekkoon moom ñëw na wan a war wan ay rakam beneen yoon ay rakam aussi tamit yàlla na yàlla def ñu am ñoom it beneen yoon donc loolu moo am solo jaajëf kontaan